boobu Sall amu ko woon ñu fay lay million bal la ñu bari baag di ñu ni yéeg bi yéeg bi kenn yéeg bi sanction lañ koy sanctionné par yéeg bi kenn kon convoqué la mu lañ ko convoqué amul leneen ah, li mu day lañ lañ ko convoqué du ay yéeg yooyu yéeg bi sanctionné nañ ko ba pare sanctionné nañ ko dix pour cent la effectivement loolu bi fu ñu ko dagg di ko dagg dëkk ñu dëkk ñu ko dagg bàll jaar fu fu ñu aay dëkk ñu ko dagg bàll nit ñi dañu fàtte am na seen am na combat bu ñu ko daggoon fu mu jaar jaaru loos yàggul nit ñi nañ fàttaliku dañ ko dagg coow da ca am réunion lañ toog man réunion man yàlla def na man man maa fa toogaloon tafatin maa représenté ménage bi maa ngi fa toog ci réunion ah, man man tafa waaw man ah, maa fa toogal keroog bi ngeen toogee réunion ah, bi ñuy toog lu ma juróomi juróomi euh, juróomi commissaire bi ña nga fa juróomi commissaire police ña toog mhm. promoteur bi mi ngi toog Basir Ba mi menaceur Balla Gaye mi ngi toog man maa ngi toog ak yeneen bëri ci des ak commandant wu gendarmerie bi ñaar ñu ngi toog sapeur pompier ñoo toog CNG ñoo ko toog ci réunion bi réunion bi ñu toogee d'abord liñ njëkk a bu ñu waxtaanee ba ba déggoo ci porte fu ñu jaar yooyu dañu ne leen mbër yi mënatuñoo jaar ci porte yi parce que porte ay verre la te am na ci benn mbër damay bañ a tudd di tooñ am na ci benn mbër boo xam ne bi mu fay dugg am na moment boo xam ne ba mu fa dugg vraiment métti na métti boo xam ne kii mën na yàq heureusement ko ñu gërëm ñu gërëm sécurité bi mais bu boobaa mën nañ yàq vérité kenn ku ne xam ne fu aar bi ay verre la nañu wax dëgg du jaarukaay du jaarukaayu mbër nañu waxante dëgg fay jaarukaayu mbër yi defar nañ ko ñu ne léegi moytuñ benn mbër bu jaaree ci port yeneen yi ñu kenn ku ñuy wutal vétérinaire boo jaaree ñu ne Balla Gaye bu jógee ci côté EDK bi ci astafala ci côté euh, Canada bi day ñëw duggee ci porte boobu wiiri ñëw duggee ci porte porte bu dee Tapha dañoo gis handicap bi ñëw jaare ji ji fii Balla Gaye amul droit jaare génn handicap bu ñëwee dañ koy wàññi bu amul droit jaare noonu Tapha amul droit jaare nii entraîneur boobu lañ leen wax man ba ñu ñëwee am na kenn ci waa kër mu amee kum benn numéro bu ma laaj ci ci ñi jege Tapha di ko woon ko doon nañ négocier fii ma maa ca këf téléphone man ko diw fii amul luñ fi négocier man maa toog ci réunion toogoo fa yow nekkoo ménage bi nekkoo encadré xaritu Tapha nga kon da nga war a yem <laughs> maa nekkoon ci réunion li li ma wax ma signé ko ma nekk ay kilifa nekk fa ma nekk kilifa comme ma sa bopp parce que fañ toog kilifa lañ may nekk kilifa mhm. ko man mbër moo jiital tam la ma signé da nga koy da nga koy da man la ma leen tafaa li fee lañ wax lay jaar fii lay jaar point wax naa ko ñu ma wax fii lay jaar bu ñëwee loolu lañ fa wax tënk ko nombre de personnes 17 lañ war am ñun ñu ñaan bañ may leen vingt ba ma ñëwee télévision laay waxee Maguette Sow bu CNG bi ngi taxaw bi dafay dugg si. Mhm. Cheikh Sarr bi ngi taxaw. Mhm. ba sama fee jeexee ñu ne ma na nañ ñu ñaan ñaari mbër man leen man du ma ñaanal kenn. bi sama fee jeexee yow. bi sama fee dama seetaan Maguette Sow mi ngi seetaan mi ngi seetaan mi ngi sama mhm. ñu waxan ci règlement bees bi ba mu ñëwee ñoom ñëpp wax naa leen nee naa leen boo ñëwee boo wàccee sa oto. 5000 nga am biir géew bi ba ma ñëwee ma waxtaan mën leen dama bëgg bagage yi nga xam soxla ma ci biir géew bi hmm. parce que am loo xam ne euh, organisation la rek sànni ñu wax dëgg hmm. organisation la rek hmm. mën leen bagage yi nga xam du ngeen ko soxla ci biir géew ba bu wàccee ci oto ba na mëri jël mu dem ca cumikaay ba directement nga dem boo demee géew bi balaa sa midi ñu lay wax jeex nga kenn du dafa problème na respecté nañ ba jeex dafa ci def dem bi ñu gai cungaay yëpp ba pare ma woo soose woo Cheikh Mbacke woo Mbaye Ndewaan mu taxaw ma ne am ngeen droit saa yu combat di jeex parce que dixième combat ngeen di bëri mën ngaa dem ñaan dugg sotte ko say bitel gën a mais bu ngeen dee ba war a bëri ji nag benn bitel ngeen war a ko man mën ma assuré leneen luñ ci aaye dinaa taxaw ba nga xam ne ma dagg bi mën naa waat ni kon mën naa man duñ ma dagg duñ ma ma dagg. ko wax li nga ko wax lépp lu ma war a mën a ci ci gaay ñuy def lañ def amuñ ci problème bi ñu ñëwee tuus mi dix minutes lañ war a tuus huit minutes laa la tafaa tuus ma ma ko jeex mu déggal ma daal di dem ma jeex mu ñëw cumbukaay commencé bagage la tuus ma amoo ci problème dugg ba amoo ci problème sama lan lañ fay aaye ba bi ñuy def gàllaaj mu ñëwaat wax leen ko foofu nag foofa lañ xaw a. wàcce yoon yoon tuuti wàcc yoon nga bañ waxee dama leen wax leen lu fekk ñu bëgg a dugal bi man leen kenn du leen téye bu leen neexee bu leen dugal mais temps lañ leen ci dagg 10 pour hmm? bu leen jar waaw man de wax naa leen. boo dugalee butéel waaw bu fekk bu fa. soo waree bëri soo waree bëri. soo waree bëri tout le temps yow mën di wàññi say butéel. balaa ngay bëri bi dugg si laam di yàlla war a bëri dixième combat. Hmm. wax dëgg yàlla loo bari bari ay la dem di sotteeku. Hmm. wax dëgg yàlla war naa mën a jeex maanaam boo soo demee ba war a bëri. Mhm. benn biteel nga yóbbu biir géew bi. Mhm. mais lu ko ëpp duñ la forcer duñ la doo ko dugal mais 10 pour cent la. boo ko dugalee. waaw ah, boo ko dugalee. wax nañ ne daal bul ko dugal. waaw léegi nag man. waaw ma ñëwee man wax naa leen ko comme que nag dafa am loo xam ne nag il faut ñu koy ñu wax. man mënu comprendre sëriñ bi ne dafa nangam lii yow nga gën gëm sëriñ ba règlement bii règlement bi daal sa kaw nga bëgg taxaw ngaañ man d'accord ma loolu. am na mbër mu mag dama ko nawoon ci lu mel noonu mais lu ko sëriñ bi wax dina ko lu ko ci fekk da ko assumé ah, ko jooy. waaw ko jooy. parce que sëriñ nga gën a gëm ko ka règlement bi te mbëri ba damay dégg ñu wax ñun règlement wax ñun suñu mën a tuubaat ñu loolu c'est faux waxu dëgg ñu wax. am nañ ko wax nañ leen ko. kooku ngeen ah ma ni waaw ah, xëy na du ñëpp parce que nit tam la ngay wax dëgg du ñëpp waaye même bu dul ñëpp itam ñoom war nañ mën a jàngat ñeneen ci des ci règlement chaque jour ñu ngi koy wax ci télé yeeg fenn fu ñu ngi koy def kon war nga caa a xam ni kenn du ma dagg naar sokas bëri na bëri na bëri na bu yàggul kenn du ko dërëm tarbaxa kenn du ko dara xam nañu. espagnol. waaw ah, Moustapha Guèye dañoo ñëw ñu ni kii benn bitel mënu ko man sax yóbbu ma dara fa benn benn bitel la ñu wax yóbbu ko ci Diop. Moustapha Guèye déwén kenn du ko dagg. waaw ah. kooku kii ba kaa bi noonu la demee. <laughs> ban ñëwee. jaar ci porte bi man. keneen ki ma la wax ba léegi ñoo ne interpellé ba ni man nay non dañ noo aayoon fee dangam ma ne ko man nag daa am na may fonctionné du caagi ne dañ aaye fee diw def na ko dama ko war a def man damay xool li nga xëy rek non mooy ko ko def waaye kii def na de dama ko war def waaw lam def est-ce que lu jaadu la a def man du ma ko def doo ko def du ma ko jógee tam bi bi bi ñu paree la ñu dagg tam lu jaaru la te man avant ñu muy génn làmb ji xam na li lañ koy dagg xëy na dama xamul koy mooy peut-être mini ñoo ëppal laa xamul woon waaye 1 million moom leer na moom. leer na yow balaa ngay xam naa ne man moom 1 million. xam naa te wax naa leen ko ñoom. kon Tapha 1 million lañ ko dagg. ci combat 1 million 60 mille lañ ko dagg. 1 million ko dagg. ko dagg ci combat 1 million yi mooy mooy mooy. butéel mooy mooy euh, mooy mooy euh, butéel yi. butéel yooyu mu dugal ci beneen 60 mille 13 minutes de dépassement préparation physique la. ok lañ ko dagg. loolu lañ ko dagg. am na solo macha allah koo koy Sow Fall ah.